par Soro euh, daal ab information judiciaire judiciaire pardon bu bàyyeekoo ca France. Euh, ña ngi ko cay tudd. waaw moom Guillaume Soro mi nga xamante ne jotoon na fa nekk premier ministre nag ci fàttali am na ay juge d'instruction boo xamante ne tànnoon nañu ko rek ngir mu enquêter ci faatum Ibrahim yi loolu rek euh, di chef rebelle boo xamante ne jotoon nañ ko. xam foofee ca Côte d'Ivoire plante bi nag ñu ngi ko déposé woon atum 2020 euh, ci tuuru famille am rek ndax dañu gisoon ne euh, moom IB dañ ko torturé woon maanaam dañ ko fitnaaloon laata ñu koy faat ñu tudd ci ki nga xamante ne moo fa nekkoon euh, premier ministre di Guillaume Soro mu ne bokkoon na sax wala moo nasoon ay pexe rek ngir mën ko faagaagal ca Liban moom président bi nga xamante ne moo jiite woon euh, li nga xamante ne mooy euh, banque de Liban moom nag jamono ji tamit dañ koy topp fi nga xamante ne mooy France liñ koy tuumaal rek mooy dafa am koppar wala alal bu lewul boo xamante ne dañuy njort ne jamono ji am na ko. moom moo waral nag euh, ñu amaloon ci ndoddam lu toll ci fukki euh, saisi ak ñaar yoo xamante ne rek dafa aju ci ay këram ay kopparam ak li ñu nekk loolu bokk na ci liñ ci gën a nemmee ko yoo xamante ne am na ko ci quatorzième arrondissement nekk foofee ca Paris ak itam Champs-Élysées ba ca Royaume-Uni ak ca Belgique Emmanuel Macron moom jël na dogal rek euh, lu ñu duppee loi d'urgence moom li mu bëgg rek mooy ñu gën a biral li nga xamante ne mooy defaraat euh, réew ma rawatina fi nga xamante ne mooy Paris loolay gannaaw ay manifesté yi amal ay yàqu-yàqu yu bëri fan yi ñu génne loolu nag euh, tax na rek mu sàkku ci waa assemblée nationale ñu saytu lu ni mel bu ko defee rek ñu mën a jublu ci liggéey bi ndax gis na ne jamono ji moom lu mënul ñàkk la ci jamono jooju nag ca am nisti moom mu ngi eh, joxoñ baaraamu tuuma ñenn ci ay kilifa ñuy féete rek ci bët sàllumu réew ma ñoom nag dañ njort ne nag dañ fay def naka sudul loonu ki xam ne li ni mel nag di ONG bi di eh, benn ONG yoo xamante ne dañu amal ab rapport ci naka sudul noonu ñu ngi sàkku rek ci kilifa yi ñu indi ci ay leeral fexe tamit bi ubbi enquête mën a teg loxo ñi nga xamante ne ñoo amal li ni mel ñu jeexale ko ca Côte d'Ivoire moom jamono ji dañu dakkal lépp laa ju ci wàllu napp ga li ko waral nag ñoom dañoo bëgg seen euh, géej gi rek amaat jën li ñu duppee repos biologique la ñu amal loolu nag gannaaw ay weer yu néew yoo xamante ne euh, waa Ghana amal nañ ko ci fàttali rek ñaari réew yi di Côte d'Ivoire ak Ghana moom bokk nañ frontière marine boo xamante ne rek daanaka ñoo bokk ci ni ñuy nappee ak itam li nga xam ne moo fay bàyyeekoo moo waral rek ñu amal repos biologique boobu ngir gën a dooleel boobu la secteur soxna Fati. aywa Ibou Diouf ñu jaajëfal ci xibaar yi biti réew yi noppi nañ ci léegi léegi ñu dalal Oumy Samb ci météo bi.